sénégalais yi asalaamaaleykum réew mi asalaamaaleykum monde entier samay xarit tey ñoo seet si a solo xam solo di ndaanaan ginnaaw yàlla képp ku solo ci ci ñoom xamee solo léegi da ngay présenté nee na Pawlish nee ñu solo yow lañ ko mën a présenté parce que ñu ay ndaanaan lañ te billaay wallaay seen dëkk ñu fay toj seen dëkk ginnaaw yàlla mun solo kenn solo ku nekk ki nga ak ki nekk kii sa idol ki nga sa idol bi nga bëgg léegi dama leen présenté PS yi dama leen présenté Waly Waly gi nii étiquette bi Waly Abou Djiba Papa Diouf a ngi nii oh Sidi Diop a ngi nii Sidi Diop oh Sidi sa loxo Sidi Ablaye Mbaye yal na ko yàlla xaare àjjana Ablaye Mbaye ngi nii lii nag dafa gën les sandartes yi les sandartes yi moom ah. Youssou ma ci oh! kii nag ci animateur yaa ngi nii ci ci ci dàq animé ak ci animateur yi oh. Allah Allah Allah